والثناء عليه والصلاة على أحب خلقه إليه أسلم عليكم أيها الإخوان والأحباب بنينا قلنا ونك تدوي الله سنتكو قرمكو جلجي سوبيم بوبولي سوكو دفيا بنو بيتي يو نك ميغي لين دي جوبلي باتك نيو بالإسلام ننكو نيون تي يين مبولي مبقي في تيو ومجددا العهود والأخوة والمواثيق التي تربط بيننا وكانت موروثة من سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. bi nee na bu يا wéyee mu ngi beesal mu ngi mu ngi mu ngi beesal di wax di waxaat kóllëreeb gi nga xam ne yàlla ko takkee moom ak yéen ak jàppante gi nga xam ne gii da ngeen koo jàppanteeg moom te loolee bàyyi ko ca seen maam yaak maamaat ya di royaat ba ci diggante jëmmam ji ak seen jëmm yi ونسأله جلت قدرته أن يحفظها للخلف كما حفظها للسلف رضي الله عنه ñu ne mi ngi ñaan ci borom boobule kóllëre boobu ni mu ko wattaloo ni mu ko wattul watteele woon mag ñi ni mu leen ko wattule loon ni mu leen ko wattule loon ba ñu dem mu rafet ci seeni loxo bañ yi ko fi yàlla ko wattulee kuutaay yi kóllëre boobu ba mu bañ a yàqoo ci seeni loxo li ci des moo di sant Serigne Abdoul Aziz bu baax bu jógee ci yooyu nag dara desu ci lu may sant sëriñ Abdoulaye si si bu si dee bu kër si bu baax. gannaaw bu ma ko nuyoo. gannaaw bu nuyoo sëriñ Abdoulaye si. xamal nit ñi it li tax gi teg ci loxo mu ubbi ko. xamal nit ñi it li tax nag bi daje bi daje ba ni rog mu ne sëriñ Abdoulaye si ubbil daje bi fabal kaddu gi. yi ko waral yi rek la. ñu ne loolu dara waralu ko lu may yii muy bëgg a wax. gannaaw man ñi ko jur ak ñi fi nekk moo ci mag. gannaaw moom mi ko jur ak ñii fi nekk moo ci mag kon nag moo war a wax ci ñoom ñu toog déglu ko comme moo war a wax ñu toog déglu ko suba ma fi fekkoon ay kilifaam nee na bu fi bopp fekkoon ay kilifaam ñoom lay wax ñu ubbi wax ji kon ñoom lay jox kàddu gi ni ubbi leen wax ji te kon moom dana ko neex lool te kon Seydil Abdou moom lépp loo xam ne danga ko jox kilifaam effacé ko ca kontaan na def naa ko it fondement yi ko ñaari yëf neena jox yi mu ko jox ndigal def na ko pour fondement yi ko ñaari yëf li yakuna naiban anni neena ngir mu wutu ko moo tax mu jox ko kaddu gi bay abdara neena bay abdara wele woon ca tiwaawoon sëriñ biran sar sëriñ biran sar woon ca tiwaawoon sëriñ musa ñang sëriñ musa ñang woon ca tiwaawoon sëriñ saybatu fall Baye Seybatu Fall woon ca Tiwaawan. Serigne Alioune Fall Abdou Booli. ak Baye Alioune Fall Abdou Booli woon ca Tiwaawan. Serigne Alioune Guèye. ak Serigne Alioune Guèye radiyallahu anhu ca Tiwaawan. Serigne Mor Seck. Serigne Mor Seck woon ca Tiwaawan. dañu soxla woon ñaan pour lif listisqa. dañoo mas a toog ba yàgg Tiwaawan nawet ba maran ñu bëgg a def baaw naan. ñu dem ci Seydi Aboubacar radiyallahu taala anhu ñooñu fi lim ñu àndandoo dem ci bay Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu fekk maa nga ca jëg saaw fekk moom mii jëg saaw la nekk ñu mu yónni ma ndaw danaa ñu wuyu si ko ba mag ñi ñëwee waxtaan ak moom Seydi Aboubacar yónni ca jëg saaw ne abduna wuy si ca tegginam ya ca tegginam yu bari ya sëñ Seydou Aboubacar daaw wax ak nit fixé dafay sëgg nee na Seydou Aboubacar si bu daan wax ak yow du la ni jàkk day sëgg mu ne ma dafa mel ne ñoom day dikkoon nañ fi nee na bi mu ñëwee ba yegsi ci moom nuyu ko moom mii Seydou Aboubacar daf ne ko dafa mel ne day mag ñi ñëwoon nañ fi te la ñu bëgg moo di dem ca jàkka ja ñaan fa ca góor ga te la ñu bëgg dañ di nawet bi maran na dañuy dem ca raw du ba ca góor ga sukk fa ñaan yàlla dama wooye ba ma ñëw ba mu wooyee sëriñ Abdou mii ba mu jógee jëkk sa wuy si ko mu sant ma ko mu sant ko loo wax loolu mag ñi wax sant ko ko ñu àndandoo dem ca raw du ba si mu ne mu àndandoo dem ca du ba bi isnihi nee na ci ndigalu si réewu kër nag laa ndeeg mag ñi yàlla def ci sutura def ci sutura yit kon lu ma tële sëriñ Abdou ko man la nee na kon bu nekkee ci place de tële sëriñ Abdou Aziz mii fàqe ko ci sëñ Babacar mu seq ko moom mën na koo wuutu bi ci des nee بيتي bi تذكرت يوما هنا yawman huna nee na fàttaliku na ci fii بس ووافق اليوم يوم الجمعة نينا بس بوبلي بس الجمعة لدجيل نجلي تاكسان تكرغا نجلي تاكسان تكرغا ووقتها إلا نجد نينا بوقت وظيفة الجمعة جد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدي أبو بكر سي رضي الله عنه سرين جوب رضي الله عنه سرين جوب جوب رضي الله عنه ورجع عن بي رضي الله عنه ورجع من بي موضوع رضي الله عنه بابا كر جوم جخير ورجع بابا كر جوم جخير رحمة الله عليه حسين جاي ورجع حسين جاي رحمة الله عليه سيدي أبو بكر جوك جم ci بي سيد أبو بكر ne ñoo képp génne këram jëm ci zawiya ba ñu topp ci gannaawam ñoom ñii ñëpp ñu topp ci gannaawam ñu dem ci jàkka ن ci dee wu kar di yeggee ca jàkka ba xëy na dama sottee ba ñu wasifaa ajjuma ba tëj ko moo jiite timis keroog si dee bu kar ci boppam keroog moo jiite timis jëf ba mu jullee ba noppi ba mu jullee ba noppi na mu ne leen dama bëgg a dellu ca kër ga. mu ne lee mu ne mbooloo ma léegi nag damaa bëggoon a dellu ca kër ga. waaye danaa fi bàyyi Abdou mu waxtaan ak. waaye danaa fi bàyyi Abdou mu wuutu ma waxtaanal mag yéen. loolee mën na jur lii. nee na kon digal loolee ko magam ju baax ja digaloon mën na ko jural tey mu digal doomam ji mu wuutu. te itam Abdou moo amee baatu kër gi. te it Abdou nag moom lañ jox baatu kër Seydi El Hadji Malick gii. te xam ngeen ndax yelloo ko wala. te xam ngeen ah xam nañ yelloo na ñu jox ko baat bi mu dégg. yal na yàgg. na yàgg. loolu moo tax bi ma ñëwee ma ne na ubbi. looloo waral mu ne ubbi jataay bi. kuy dem di nettali li nga wax li nga nee na képp koo xam ne daf ki noppal kuy nettali ji ndax bu la wóoree pengu booy dem di nettali da nga nettali li la wóor. gannaaw bu ma ko nuyoo ak i rakkam. gannaaw bu nuyoo Seydi Abdoul Aziz ak rakkam nag. sant ko. sant ko baada hamdillahi wa shukri gannaaw bu sante yàlla nag gërëm ko maa ngi sant lool alhaji rawhan ak ala sëriñ lamin diop ñu ngi sant lool lool alhaji rawhan mbay ak alhaji sëriñ lamin diop ak bokk yi nga xam ne ñoo ko jàppale ak bokk yi leen jàppale di sant mboolem jullit yi fi daje. di sant mboolem jullit yi fi daje. ak jaaliye bi fi jógee. ak jaaliye muy sunu bokki libaane yi fi jógee léegi. njanaaw njanaaw. sëñ bi nee njanaaw. dafa baaxoo ñaari laaf. xam ngeen ne njanaaw moom ñaari laaf lay naawe. Seydil Hadj Malick su doon njanaaw. Seydil Hadj Malick laaf baay jolof. bi ci des mooy waalo. benn ba di waalo. dunq ya. mooy adduna bi yëpp. mooy adduna bi yëpp. ak ñu baax ñi fi nekkoon. ak ñu baax ñi fi nekkoon. soppal ko seen bopp. soppaloon ko seen bopp. mu sopp leen. moom it mu sopp leen. ñu àndandoo ànd ngir yàlla. ñu àndandoo ngir yàlla. te bokkuñu masrab. te bokkuñu sax naanu kaay kenn ku ci nag yar sa njaboot ci loolu kenn ku nekk yar nga sa njaboot ci nekk benn googu moo tax waxtu woo xam ne woote am na moo tax saa yu woote xewee su sëñ Abdou waxee ci rajo bi su sëñ Abdou Aziz waxee ci rajo bi ñëpp daje ñëpp daje gaañu yal na leen yàlla fay nee na gaañu kon yàlla na leen yàlla fay manu ñu leen fay waaye yàlla leen yàlla fay mi ne moom day amul kattan ci fay waaye yàlla na yàlla fay te nu wóor leen ne dem na leen wóor péng nag ni yal nañu yàlla dimbale yal nañu yàlla dimbale njabootu Seydil Hadj Malick ñoom ñoom ñu ngi am di leen gërëm njabootu Seydil Hadj Malick gépp ñoo àndandoo di gërëm bokki julli ji di leen sopp di leen sopp ngir jëmmi yàlla ngir jëmmi yàlla fa tabaraka allahu ahsanu xaaliqina tabaraka allahu ahsanu xaaliqina sëñ Abdou wootewul ngir boppam. sëñ Abdou xam ngeen ne wootewul ngir boppam. nga wootewul ma ngir sama bopp. moom mii di bàyyam it wootewul ngir boppam. ay rakkam it wootewuñu ngir seen bopp. rakki sëñ Abdou Aziz it wootewuñ jëme ci seen bopp. waxuñu ne dañuy tabaxal Seydi Aboubacar. kenn déggul ne dañuy woote pour tabaxal Seydi Aboubacar. wala dañuy tabaxal Seydi El Hadj Malick bàyyam. wala bàyyam Seydi El Hadj Malick lañ bëgg a tabaxal. dacawnaakum lillahi wa labbaytum nee naa woo nañ leen rek ngir yàlla yéen it wuyu ngeen ngir yàlla kon nag la yàlla dale ci ku wuyu kon la yàlla dale ci ku ñu woo ci yàlla nga wuyu ci yàlla yàlla leen ko yàlla defal yàlla na leen ko yàlla defal yaxfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alimin waaye la ca des yàlla nañ ci yàlla musal wa man laa yujib daaiya allahi fa laysa bi mujisin fi lardi wa laysa lahu min dunihi awliyaau ulaika fi dalali mubin ñu ngi leen nuyu mbokk yépp yépp bàyyiwuñu kenn kenn kenn ngi nuyu mbokk yépp yépp yépp bàyyiwul kenn jolofoog jolofoog waaloog waaloog saalumag saalumag bawal bawalak siñi siñi kajoor kajoor bàyyiwuñu fenn. bàyyiwuñu fenn fenn fenn fenn kap. sharqan wa garban. char penkook sowu. kap weer nag fi la yëf yi xewee. zukuran wa inaasan. góor ñeeg jigéen ñi. sigaaran wa kibaaran. góor ndaw ñeeg mag ñi. ñu ngi nuyu sëñ Dakar. mi ngi nuyu sëriñ Dakaru Bachir Diagne mi toog. ci dikk bi mu dikk. ci dikk gii nga dikk teew. di nuyu doomi soxna yi nga xam ne seen baay. na fi Seydi Haaj Maay fekkoon di nuyu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ŋànk kabbeer gi Seydi Haaj Maalik bi mu ñëwee seeni bàyyi ko dalal ak mag ñi fi nekkoon te dalal leen ak mag ñi te mbay binta pay mbale toog wuutu leen fi te dalal ñooñu fi jiitu woon te dalal ñooñu fi jiitu woon am na ñu fi jiitu Seydi Haaj Maalik am na ñu fi jiitu ci doomu soxna Seydi Haaj Maalik waaye bi mu fi ñëwee waaye ba mu ñëwee. ñu dem ak moom ba mu mel ni moo leen gënal seen bopp. dañoo dem ak magi Ndakaaru dañoo dem ak Seydil Hadji Malick ba mu mel ni moo leen gënal seen bopp. yaatal ko lool lool ko lool ba mu yaatu. bëgg ko lool. dañ bëgg lool ba mu dem dayoo. wala ñu fab sax seen teraanga yëpp jox ko. nee na du mu jéetu ñoo mu jéetu ñoo moom lu may fab seen teraanga yëpp terale ko ko. mag ñi mu fekkoo it def loolu. mag ñi mu fi fekkoon it loolu lañ def. kon ñun ñu mën a def lu dul bëgg ndakaaru kon ñoom ñii daal duñ mën lu may bëgg waa ndakaaru dimbalee ko Seydi El Hadji Malick dimbalee ko seen baay Seydi El Hadji Malick dimbalee ko Seydi Aboubacar dimbalee ko seen mag Seydi Aboubacar si te di ñaan yàlla loolu sax te di ñaan yàlla loolu yàlla na yàgg sax am na benn uh, guy wala benn benteñe nee na garab bu ñuy wax guy wala benteñe am na ci dëkk bi ñu ngi ciy mot mi ngi ci penc mi wax mbot. daana fa toog di tari ba. moom mi bari na lu mu toog ca taatu guy gë di tari. Cerno Sëriñ Haadi radiyallahu anhu. ànd ak sëriñam Sëriñ Haadi Touré radiyallahu anhu. ku nekk Souleymane Pay ca biir. nee bu ko defee bu ñëwaan góor gi Haadi Touré day dugg ak Baye Souleymane Pay radiyallahu anhu ma di waxtaan moom mu nekk ca taatu guy ga di tari. wala ca kër Baye El Hadj Cheikhou Kane. yii saa mu ànd ak sëriñ Haadi dem kër Cheikhou El Hadj Cheikhou ca jàkka ju ndaw jooju fa nekk. ko defee ca jàkka ju ndaw ji ci diggu kër ga. radiyallahu anhuma sëriñ Lamine ak na su ko defee sëriñ Lamine kan ak sëriñ Hadi yal na yàlla dolli seen ngërëm. nekk ca téere ya. ñoom ñii lañ la ñuy ca téere ya. ba minuit. ba min wi jot ñu door ñu door fa jóge ñu door fa jóge moog sëriñ aadi moom mii wala ñu dem wetu ngaje wala ñu léeg-léeg sëriñ aadi jiitu moom mii mu topp ji tari ba wetu ngaje yàgg fa lool yàgg fa lool wala wiiru ngaay wala wiiru ngaay foofu yëpp xamoon na ko nee na yooyu gox ci boori géej goom xamoon na ko kon nag kon nag jooju teranga jooju teranga dañuy ñaan yàlla mu sax fi dañuy ñaan yàlla jooju teranga yàlla na fi sax Seydi Aboubacar daana ko ñaan Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu lum daana ko ñaan itam ñooñu lu ñu ñaan yàlla nangu ko te ñooñu kat lu ñu ñaan yàlla nangu ko ñu ngi leen di gërëm mi ngi leen di gërëm di leen sopp di leen sopp di leen bokkoo di leen bokkoo di sakku ci yéen ngeen bañ fàtte di sakku ci yéen bu leen ko fàtte ci seeni ñaan ak kii sëriñ bi waa rajo bii nga ne yàgg leen di nuyu waa rajo bi ñoom te ñëwoon ba leen laa nuyu ziyaara la dañuy joxe seen téeméeri junni yi ba noppi door ci teg nuyu ak ziyaara ak sakku ñaan yëg naa ko sëriñ bi ne yëg seen mbir na ñëpp tàll seen loxo ataa awul xalqu min insin wa min basharin وزانه الحق في أنس وفي ثمر يرضي مقاليه كم بالخيل سادمهم يرضي مواليه كم بالخير والظفر له يد في الوغى لكنما يده يبدي يدا وندا إن جاء ذو وطري صلى الله عليه وسلم يا جالب الخلق نحو الحق متنيا ومرجى الناس حين الباس والضرر بكم توسل عبد بكم توسل عبد مجتب مننا بكم توسل عبد